ay mbokam di len séddale xaalis bi ba pare di tiitaru ci kaw nit ñi hmm. te yow lo dara lolu modul jaadu wala ngay voyager fune nga dem fa hmm. ci ci frais contribuable bi lolu mo amul sens hmm. si c'est de l'argent bu fekkee ne euh, Sénégalais yi de l'extérieur yi ñoo ko moom nañ ko Dakar parce que les projets doivent servir au Sénégal mais non pas aux États-Unis mais bu ñu jëlee xaalis dugal ko sen valise diko ko wër di ko joxe joxuñu ko sénégalais yi joxuñu ko sénégalais yi seen parti lañ koy jox seen seen partisans lañ koy jox et le Sénégal n'est pas pour la, pour la paire. Le parti, avant, ou la patrie avant le parti, c'est le plus grand slogan mensonger de l'histoire de Macky Sall. C'est le parti avant la patrie. C'est la famille avant la, avant la patrie. C'est les parents avant la patrie. C'est sa femme avant la patrie ba tey yéen a ngi seen émission dox daje fii ci rajo xalima tey ma fi dalal Mader Fall Mader tey bu ñu ñëwee ci damay gis ba tey si sa si sa chronique yi laay la laay des des fois nga jékki-jékki attaque première dame Mader mu mel ni yow bàyyi woo dara lan lan en fait lan lan mooy problème mu Mader. sama problème mooy injustice sama problème mooy injustice je suis prêt à sacrifier ma vie damay xëy na damay dund dans un monde idéaliste man xëy na idéal laay dund hmm. mais man affaire naa fekk dama ci xamul dara te kuma xam-xam ne ci loolu laa musa nag la l'histoire est là l'histoire ne ment pas hmm. j'ai accompagné Souleymane Dene à hmm. mi-chemin dama ko bàyyi ku ma gën a jege Souleymane c'est un ami sama goro la hmm. man du ma dox ci lu dul dëgg du ma dox ci lu dul dëgg mais nag Sénégal dafa mel ni man dafa am na kilifa c'est vrai mais gis nga kilifa yooyu di woote ay kilifa diine ñoom ñoo dul ñoo tekkiwul dara déet waay déet waay sëñ bi. ma maa la wax loolu gis nga damay toog ma liir dara ma dégg dara dama lay jox benn exemple rek bu bu bu primaire. Hmm. yow génn nga fi temps yële ben, ben, benn benn son bu Ahmed Khalifa Niass di wax lu mu waxul ci Macky Sall dafa am. Hmm. ma toog benn jour yàlla na ko sama borom yóbbu àjjana yàlla na yàlla taas ñu ci barkeem. Hmm. mooy Serigne euh, Mansour bi mu nelawee. bi dépouille bi ñëwee aéroport la la Khalifa Niass wax fa benn lu extraordinaire. ci ci dépouille bu taxaw nga naan kii tëdd fii de waxoon na ma naa jàppale Macky sal xoolal ma transition bu malhonnête boobu hmm. yow nga foog ne façon yooyu nit ñi war nañ leen di leen déglu hmm. te ñooy lëmbale Sénégal et au nom du de de l'islam hmm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu naan la noppil bul wax damay wax Sénégal la fa nekk dañ ko war a xoolaat ana dëkk bu toll ne Sénégal ñu naan démocratie la te amul amul amul opposant fi mu ne nii y a pas d'opposition personne ne s'oppose à parce que ku nek yaa ngi ne parce que c'est une c'est une classe politique vieillissante. rek xamnañ ne ah, Macky. mais nak mais nak mais nak non la mën a classe politique vieillissante parce que bu fekkee ñun jeunes yi jeunes yi nanguwuñoo jël sen responsabilité lo rek mo fay am. mané ay Seydina les jeunes veulent bien bëgg nañ ko mais li mag Moustapha Niass def ku ci mën dara comme bo créer parti ya ko mom sa propriété la. Hmm. Ablaye Wade à 80 ans moy géré gérer ba tey son parti. Hmm. kon fan la jeunes yi jëm.

bi doo ko gëm ana général bi fi nekkoon ñu ngi koy yóbbu Chine planqué ko foofu amul retraite Sénégal amul retraite hmm. ana Babacar Diagne il a servi Wade il a servi Diouf il a servi Senghor ma nga Banjul mais fan la nit ñi jëm consulat yi au lieu ñu jox ko les les les jeunes diplômés yi nekk dans la magistrature xaw ma ci ci domaine diplomatique bi duñ leen ko jox seen i mbokk la ñuy placé ñu jonguñu fan la Sénégal jëm hmm. demul fenn. <laughs> dëgg nga ne kenn du ko wax. il faut am kenn ku wax il faut kenn wax. Hmm. ba tey ba tey mbokk yéen a ngi seen biir émission dox daje lii daf ñuy permettre tey euh, Madère ñu mën a ñëw yow ci politique parce que bu ñuy xool fi mu nekk nii 25 décembre 25 mars 2012 25 mars 2014 ñaari at nguur Macky Sall ana tey noo ñu mën a jàngalatee tey bilan wu Macky Sall euh, euh, ci deux ans yi. xam nga bilan Macky Sall bi loolu laa ci gis effet d'annonce ay effet d'annonce rek day wax rek day wax rek. mais nag mais nag saa yi nag yow yow yow nag yow yow dara positiful. dama lay wax wax ma lu concret lu Macky Sall def parce que waxoon na ko. mais bu ñuy xool bu ñuy bu ñuy mais mais attends bu ñuy xool tey luyaas bi am na yoo xam ne wàññi na ko si bu ñuy xool bu ñuy xool mais ma rek. may ma rek ma ñëw bu ñuy xool tey Casamance bi tey ñëpp nee nañ jéego yi mu commencé tamit dal na xel dund gi bu dee as néew it wàññi nañ ko nañ ko nañ ko jaajëfal nag. kaay ma wax la dara ci affaire luwaas yi. Ah, yow xamoo ci ah. nu mu tabaxee këram. xamoo ñaata la fa investir yow nga xëy rek ci li euh, nga toodre ko euh, nga nga nga bës loxoom ne ko tey nga wàññi xam nga loolu hmm. loolu affaire cuune la dara boo koy def da ngay teg da ngay da ngay teg euh, da ngay da ngay da nga koy da nga koy étudier le truc là n'a pas été bien étudié dañoo xëy rek bëggoon a neexal nit ñi parce que le peuple était en effer le pays était en effervescence il fallait que ñu jël benn mesure bu xaw a populaire noonu ñu nax nit ñi mais kenn mënu la wàññiloo kenn luwaas kenn munu ko parce que tey bu fekkee ne loyer bi cinquante mille la war a doon yow da ngay déparé cent mille hmm. di nga am li nga bëggoon mooy benn deuxièmement euh, bu ma la nee Macky Sall deful dara hmm. effet d'annonce rek day wax rek hmm. Macky Sall euh, dafa dem dafa dem Burkina Faso mu ne man ku may xaar ci ay infrastructure da nga sonn parce que man loolu maa tax loolu taxu jóg man état de droit laay defar yow xanaa état de droit c'est Senghor la yow da nga fee fekk état de droit motax nga falu au nom d'une de cette démocratie là li ñuy wooyee démocratie mo ñu ray ñun dañu wara a benen beneen une autre façon de faire la politique parce que bu fekké né le tout sauf Wade moo fi teg Macky Sall mais ça c'est notre malheur parce que ku waxal yalla tay xamné hmm. Abdoulaye Wade du moroomu Macky Sall je je l'ai je l'ai combattu nak encore une fois hmm. mais nit ñi ñep ñu ngi regretter Macky Sall ci pouvoir bi parce que Macky Sall doomi Abdoulaye Wade la limu mu tari rek lay nit ki li mu nga nàmp rek ngay ngay ngay ngay géex gis nga les les pratiquement fieuses la yu ñu doon collé waat moo nekkaat ci Macky Sall mooy li xaalis bi ñëw fii benn mbokkam mi muy jël. wadd sax dafay waxoo noonu parce que wadd quoi qu'on doom ji moo ñàkk xel rek waaye doom bi bu amoon xel <laughs> la mu yenu woon du ko yenu ba dugal papaam ci pétrin bi lu dal Abdoulaye Wade Karim Wade moo ko teg mm. entre loolu rek léegi nag moom na jàpp ne ni mu dugalee Karim Wade ci kaso bi ñu ngi koy xaar ci ruq bi mariam Sall mom du musa du musa re ci carte bi danañ ko duggal ci carte bi parce que implication momit bu Karim ben la amul bureau nomé wuñ ko ministre mais c'est elle qui gère c'est elle qui gère le pays xolal li xew ba ki dem bu fële ci ci xolal di ñuy def soxna Mimi Touré yow ko xam sa jëgër ba mënul dara mom c'est la tête pensance mo koy jàppale diko dimbale tay sa ay frère jóg nañ rek nga ne ko tay nga dé tay ñu dàq tay ñu toroxal la tout cas que ça c'est est normal ah et puis si ça s'est passé pour la Sainte nous touche te lu xew ci pale bi yow la lu fa xew moom la Alioune Badara Cissé problème am moom la madame Senghor problème am moom la tout lepp mom la. <laughs> non mais xam nga xam nga xam nga xam nga ñun tamit euh, bu ngeen wax aussi bon man dama gis Sénégalais tout temps dañuy day bon dañ naan presse bi presse bi tout yépp ci presse bi lañ koy mais ba tey euh, dégg Mimi Touré lu mu wax leer na mais pourquoi mun leen gëm lu Mimi Touré wax mom ngeen amul problème ah. yeen ngeen bëgg indi problème fu problème nekkul. xam nga man du ma wax ak Mimi bi ñu ko falee premier ministre xam naa ko de xam na ma bu baax xam naa ko bi ko falee ba tey musuma wax ak moom. Hmm, hmm. damaa gis rek niñ koy sonale di ko toroxal. Hmm. mu métti ma lool mu dëkk sama sœur musuma koo jàppale mais jàppale naa ko ci créel naa ñi koy créé ñi koy créel def naa ci suma dugal naa ci suma loxo quoi man xam nga Seydina man injustice rek laa bañ ku fu ñëpp far sax booy xool ñuy dañ anticonformiste ak nangam ak nangam mais du loolu. parce que loolu tamit dañu kaa dañu naan Mader Mader il n'est jamais content quoi loolu loolu dafa loolu dafa jaaxal nit ñi trop ma Mader kenn mosul gis fu mu Mader bindee lu article boo xam ne jàmm la. Eh, xoolal biñ fi indee xaalis bi j'ai applaudi des mais xam nga bu ma naan Macky Sall drague les femmes d'Amérique xam nga loolu jóg la loolu lu neex la. xam nga lu may ah, waaw lu neex la gars yi di nga ko liire noonu de. Ah, bu ko kontaan naa noo kontaan woon naa noonu ci bi gis nga tey jii bu defoon. Euh, Euh, et puis ma def ben ben parenthèse ah. je aw ma animosité contre Macky Sall ni muy doxale rek la mer bugguma ci dara té la bonne preuve gis nga ta bañ koy sonal. Mm. amna waju waay xawma tudd xaw ben nu la mo nekkon ministre des Sénégalais de l'extérieur extérieur fi mom lañ tuddé won Sada Ndiaye Sada Ndiaye Sada Ndiaye j'ai failli le gifler fii. buntu buntu buntu buntu Sénégalais de l'extérieur barka alcorane barke karim dama ko xool jëppi ko ndax rek mom la tuddé won ce, ce, ce fameux projet. ba ñuy <laughs> waaw créer Macky Sall dama bind. Mm-hmm. je crache sur le PDS et son secrétaire général. yekk Abdoulaye Wade lu mel ne xeme da ngay yab nit ñi parce que Macky Sall war nañ ko war na na nañu xol sa dom rek nga né tay nga yóbbu ko laaxira xolal ma ces opportunistes la ñi ko doon sonal tay ñom ñoko wër. xam nga man sa larbinisme la moom moo tax man munuma politique te duma musa politique fu tooy rek nga dal fa ba ñuy toroxal Macky Sall ñii ñëpp dañoo toogoon di ko xool kenn ñemewul a lever la voix hmm. te boobu nag j'étais un PDS actif ñu nekk ci benn forum bu interne hmm. quand j'ai prononcé le nom de Macky Sall rek ñëpp yuuxu xam nga nan lañ def dañoo jël lettre bi la ma bindoon noonu dem tegal ko ci table Ablaye Wade man dama faale Ablaye Wade hmm. keneen dem keneen dem commandité benn lettre ñu yàq fa sama der man dama leen a fale man politique man loolu ñoruma mais booba dañ doon néewal dafa doon am kuñ doon néewal doole posture boobu tey la keneen nekk ma koy jàppale tey xam nga tey Mader euh, tey jii bu ñuy xool Sénégal ñu bari dañ naan est-ce que tey ñii di wax ñëpp seen mbiru bopp lañ bëgg di defar parce que peut-être ñu naan Mader mi ngi wax ay mbiram la bëgg a def ko ñu ko foolee bu lu muy yoot bu ko jotee ne pat parce que gis nañ ko fi ñu naan doo ay Souleymane Jules Diop gis nga fu mu mujj ay ñëw Latif gis nga fu mu mujj ay Penda Mbaw Aliou Tine mais tey ana waaw ana tey tey est-ce que nekkul tey nit ñi duñu xalaat ne kii lu muy wax ni peut-être euh, dafa bëgg ay dégg ko rek moo tax mu nekk fi di saaga pour pour Macky mën ko ragal. ñi ma xamul dañ may defal souvent souvent de mauvais procès hmm. ñi ma xamul rek la nag. parce que hmm. ku ma xam xam ne man. Euh, te dafa xam nga l'histoire est là encore une fois Souleymane Ndéné sama xarit la suma mbokk la waaye. ba falo buma bu falo ma falo wala ba ñibi dem Sénégal wala mané ko duggal ma ci consulat bi. Ah, mu ngi parce que bo boobu parce que boobu xamoon nañu sabar gu tass la ko fa dem tamit da nga fekk nit ñi ñibbi. non non non c'est pas évident c'est pas évident mais dama la bëgg a xamal rek ne la li tax ma gëna contre Macky Sall ma gën ko mere. Hmm. mooy ñi ko wër ces opportunistes la amalu ko njëriñ lu bon rek lañ koy sant lañ lañ koy defloo yow bon, bon, comme mel ni Souleymane Jules Diop quand Macky Sall le met derrière lui naan ko jox yoreel communication. Hmm. mais c'est est daf mooy mooy dafa saaga ndey Sénégalais, yëpp. koo xam ni il doit sa promotion ci ay saaga ndey ak yu bon. Hmm. ah nga bañ nga bugg cee mucc mucc rek yaa sa famille nga indi ko ci biir palais bi teg ko fa. Hmm. mais kooku c'est est insulter tous les Sénégalais. ben rek la lay jox benen bi. ñaka a xam seen bopp xam nga man. man musuma liggéeyal gouvernement musuma lek xaalisu gouvernement barke salatul fatiha xaalisu PD sax musuma ko lek dama dama set wetch ñaanu mag soxlawu ma soxlawu ma seen dara no mais na man léegi man lu may doy Macky man ban ban njëriñ la ma Macky Sall mun a mun a dimbale lan lu may fal mu ne ñoo fal dara man hmm. xam nga man lan laay ut hmm. dëgg fu mu nekk rek ma dem fekki ko fa hmm. j'ai pas le monopole de la réal de la vérité utuma ko man politique ma man munuma politique dama munul sax politique parce que discipline de parti amuma ko mais sama dëgg moom fu ma fekk danaa ko génne danaa ko wax ba dee fekk ma ci lar bi duma duma duma duma duma na luñ ma fi faloon xam nga luñ ma fi faloon. Ah. ñëpp bëggoon nañ ko nekk di maa yore woon alliance panafricaniste fii aux États-Unis j'ai été reçu par le président Ablaye Wade. Hmm. sama audience ak moom. ñaari nit laa ko bokkal ñaar ñëpp dañ ko doon woyaan di ko ñaan ñii di wut ay poste Madère loo bëgg ma ne ko bëgguma dara monsieur le président barke salatul fatiha hmm. génn def ma yoon Souleymane dene mu ngi may dégg keneen mu ngi may dégg hmm. soxlawuma yëfi kenn du ma ñaan du ma du ma du ma saraxu gis nga ba ma bindee ne leen je crache sur le PDS et son secrétaire général ci laa leen jébal seen affaire. Mhm. booba ñu ngay neewal doole président bi tey. je donc donc kon lecteurs yi lecteurs yi euh, internautes yi mën nañ jàpp ni àdduna du yàgg ba ba ma reer soppeeku. non man du ma jaam man gor laa. Mhm. te j'appartiens dans à une famille royale. man mhm. du ma supporter kenn yaakaaruma kenn su ma ñàq bii laa yaakaar. laaj ko waa New York gii gisuñu ma ma taxawaalu ci lenn dew ma ci lenn lii nag c'est une cause bu may mooy affaire fees bi. Mm. affaire sàcc la organisé mm. et na xam nga fii encore une fois ñi daan wax fii sax aux États-Unis léegi dañoo noppi parce que ils sont dans la mouvance présidentielle moo tax dañoo weet nit ñi dañu sonn amuñu ku leen jooyal boo boo nekk tey jii bu ma nekkoon Sénégal bu may pare dig di ma jël si parce que mm. yooyu loolu la ñu xam Sénégal kenn ñemewu la wax ñëpp dañu ragal Macky Sall tëj na ñëpp ci kaso bi xoolal ndaw si mu tëj ci kaso bi femme d'affaires nga jël ko tëj ko ci kaso bi bàyyi ka nga xam ne yaakaar nañ ne moom moo ko doon jox ay marché nga ko yow nga xam nga c'est du n'importe quoi hmm. c'est du n'importe quoi nit ñëpp ne tekk nag xaw ma téo bi dégg naa am na ku ma ne sax bi téo bi tojee noonu fa lañu def la ñu def moo ta sénégalais yi duñ mu sa wax <laughs> ah non non loolu wax la rek <laughs> ah gars man xaw ma de gars yi daal nee nañu téo ba daal am na lu ñu def hmm. ko naan bu ne mepp noppi ngay def da ngay noppi rek hmm. waaw gars yi di def li leen neex mhm. voilà mbokk yi ba tey yéen seen biir émission dox daje fii ci rajo xalima tey ma fi dalal suñu euh, chroniqueur euh, Mader Fall fa ñu fas yéene waxtaan ak moom ci ci mbirum euh, li nga xamante ne mooy actualité ñëw nañ ci mbirum fees ñëw nañ ci mbirum président yi nga xamante ni ñaari at yi nga xamante ni yor na ko si boppu nguur bi